mardi boo xam ne nii moom moo tombeek euh, la lan février sax tey la ñaata ci weeru tubaab balaa may juumati ah tey la 7 février ah ok am na solo balaa may sori nag dam leen di bàyyi ngeen dem seetaante dig bi yëglekaay li ñu andi ñu dikkaat bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 7 février ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi xëy ko doore sunu làmb sunu làmb tey xëta mu njëkk xëy gën caa moom moo di Bombardier mi nga xam ne moom moo war a daje ak tafaatin le douze bii jëm maanaam dimanche si bii nu jëm yëglikaay bi nag boo bëggee dégg dëgg daal ñëw na ci expérience su Bombardier bëre piir ba ak la nga xam ne moom moo di wàllum force physique am maanaam dooleem yemu ca ba cinquante deux bi jëy itam daa mel ni ki daal fi mu nekk nii pare na ngir nag bombarde ki nga xam ne nii moom moo di tafatin la géant di bawal yëglikaay bi nag moo tax mu ne tafatin boo bëggee dégg dëgg fa wàllum tactique bi ak yu mel ni ki noonu mu gën caa xaay maanaam xar tànku tubéem expérience ba tamit lu mel ni ki noonu parce que itam jàpp na ne bis boobu daal tafatin moom boo bëggee dégg dëgg daal faw mu lisit te itam nag nekk koo xam ne nii dina attentif maanaam maanaam bañ a yàkkamti te itam nag boole kooku gaawaay lu muy def mu gaaw ca parce que daa jàpp ne bu defutee loolu rek lu ne mën na koo fekk digganteem ak ki nga xam ne ni moom moo di bombardier ñoom nag balaa ñoo bëre dimanche am na ñoo xam ne ñoo leen di jëkk bëre ca samedi ja muy diggante gàkku deux ak ki nga xam ne ni moom moo di bébé jéen gàkku deux nag moom boo bëggee dégg dëgg démb soose bu faas moom moo génnoon ne ki xam ne ni moom moo di moo di favori waaye daa mel ni ki nag moom entraîneur u faas ba bokkul ak entraîneur u Pikine bii xalaat muy Cheikh Ndiaye ma nga xam ne moom moo yore Boy Niang Cheikh Ndiaye la mu xëy xamle daal na boo bëggee dégg dëgg wàllum favori moom bu nu koy seet gàkku de la ñu koy jox wala moom boog moom la koy jox ndax nag boo bëggee dégg-dégg jàpp na ne gàkku de daal nekk na mbër moo xam ne ni daal wàllum xeex ak bëre da caa ay lool lool kon daa jàpp ne daal maanaam li nga xam ne nii moom mooy favori ba moom la Bébé Diène nag moom la ko Cheikh Ndiaye xamal ne na ko bés ba moom na ànd ak am xelam maanaam jéem a lisin parce que nee na bu ko defulee nag lu ne mën na ko caa fekk kii moom la ko fekk fa mu daan dugg wala fa muy dugg moom moo de ay ndam muy zarko am dëndam daal la jël sampal ko waa Medina ak waa waa Fass ndax nag yëglikaay bi na ginnaaw ba mu daanee mbay gu ñu ne déet ne waaye mu jël aada Fass daanaat ko Zarko nangoo gudd a génn foofu ba tey jën kayre la jël sampalati nii moom moo di seen mag di Gris Bordeaux loolu moo di la nga xam ne nii moom moo di gis-gisu Zarko yëglikaay ba moom moo xëy ñëw wax nu ko moom sunu lamb beneen xale ngi nii moom bu yeboon na ko lamb bàyyi xel yëglikaay bi nee na Batista numéro deux lay wuyoo di doomi victoire te itam nag yëglikaay bi ne na am na combat fi mu nekk nii ci làmb ji parce que nag digganteem ak nga xam ne nii moom moo di booy Sadio combat ba taxaw na ña ko tëgg nag mooy les amateurs wala boog les jeunes bi nga xam ne moom la Gora Ndoye daal di jiite loolu bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb moom mu xëy ba tey diñu xamal mel ni ki noonu su ma fa jógee léegi damay dem fa nga xam ne moom moo di les arènes ak tafaatin mi nga xam ne démb def na open press mel ni ki nag open press ba mu ngi ko doon defee école Médine ngir waajal combat am yëglikaay bi na daal bu bëggee dégg dégg démb moom ñëpp ñëw nañ wuyu si tafaatin tafaa nag la mu xamal Bombardier nee na daal ci ñaari nit moom ci la koy wan ko daan ko du sama ay wax nag Tapha Tine moom moo koy nu mel ni ki noonu ci yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di les arènes su ma fu continuer ba tey ci les arènes maanaam mbirum ki nga xam ne moom moo di Modou Lo ak Boy Niang yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di les arènes nee na ah nañ ci tey de combat boobu combat boobu ndax nag Luc Nicolaï à tout moment mën na jaxase carte ga ndax nag bu fekkente ne Ama Baldé guérison bi da koo yóbbu te itam guérison ba daal di jàll nee na boo bëggee dégg dëgg kon CNG ba bu kerookee ci lu gàtt dana jàpp combat Gris ak Ama te itam bu keroogee su loolu amee nag bu bëggee dégg dëgg moom ak ak ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang su fekkente ne maanaam yeggagul seen see bu bëggee dégg dëgg ak jaxasoo est du ca am yéen ba moom moo xëy tey samp boobu laaj moom moo di Serigne Ndiaye numéro 2 ak jël bi xam ne daanu na ko bërki dem ci arène nationale muy première sortie mel ni nag xale bi ñuy wax Boy Maroon daal moo ko daan bu gànna seeraas jël boo xam ne jël bu réy réy mel ni nag jamono jam koy daan ka nga xam ne nii moom demi-finale jël nañ fa teg moom moo di Doudou Sané yëglikaay bi na ñaari dimanche a ngi ni yoo xam ne ni daal Doudou lu ñu teg arène nationale moo koy jël moom Doudou Sané doomu Joof yoon bi moo tax yëglikaay bi di Les Arènes jàpp ne Doudou Sané ak ki nga xam ne nii moom moo di Franc bu Parcelles boo bëggee dégg-dégg ñooy ñaari mbër yi nga xam ne nii maanaam arène nationale ñoo fa jël ñaari galaa yu teglantoo ci wàllum poids lourd Les Arènes moo xëy ñëw wax na lu mel ni ki doon te Doudou sax yemu ca Doudou moom boo bëggee dégg-dégg maanaam boo ren li mu génn yëpp juróom-ñaari génn yi mu def mu def yëpp yëpp la gañe moom Doudou Sané Xandaafi di doomi joof yor kon fi mu nii daal boo bëggee dégg dëgg ku yebu bàyyee ko xel moom Doudou Sané mu joof yor parce que nag daa mel dafa ñëwaat beneen ñëwin bu gën a bees ba mu daan ñëw jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi li nga xam ne moom lañ koy indil muy sunu làmb ak ki nga xam ne ni moom moo di les arènes record nag tey génn xaw ma wala boog gisuñu ko boog xaw ma lu tax waaw muy nuyu Assane Walu Gueye ah borom record moom mi fay bind làmb maa ngi koy nuyu du nuyu groupe du nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp mais du nuyu waa Sénégal di leen balo ak di leen ñaanal jàmm di ko sa ci ñoom rawatina nag amateuru làmb yi nga xam ne encore une fois comme ni ma koy waxee rek amuñu seen fayan ah, yàlla na leen yàlla fay parce que nit ñi nga xam ne boo sa vidéo génnee ñoo koy topp di ko seetaan di ko zeme di commenter des fois ñu yëpp seen téléphone di la woo di la encourage di la féliciter et puis di la defal ay critiques yoo xam ne pour nga avancer la kon ñooñu awma seen fay yal na leen yàlla fay wala amuñu sax seen fay lay wax waa groupe bi yëpp a ngi kontaan ci yéen ah di wax que ni nag gis ngeen blouson bi ma sol nii tey mooy bi Zarko jëloon sëlëm ma ci ak suuf sax xam ne ngeen ko defee naa ne moom moom bii la woon bii la woon Zarko borom Grand Yoff l'adversaire de Diène Kaïré <laughs> Zar maa ngi koy bëgg di nuyu Diène mel na ki nag fi mu nekk nii olof ak wax lu dafa wax lu ay di njàmbat samedi ak dimanche ku ne xam ne dina yëngutu ndax nag balaa ñoo yëgg dimanche Bébé Diène dina bëree gàkku de samedi lay doon loolu Assane Ndiaye bool moo ko tëgg waaye buñ ca jógee ci dimanche ji nag Bombardier day ñëw mook Tapha Tine loolu Line Production moom moo ko tëgg Aline ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ziar moom tamit du nuyu Assane Ndiaye waaye boo bëggee dégg dëgg Bombardier yëglikaay bi daa xëy tey ñëw ci moom maanaam ci la nga xam ne ni moom moo nekk ci moom bi expérience beeg bëree bëree baak force physique baak yu mel ni ki noonu te mu di dem nag mu pare ngir nag bombardé tafaatin loolu lépp yëglikaay bi ñëw na ci moo tax yëglikaay bi xamal tafaatin ne ko nag il faut nga lucide maanaam nekk itam ku gaaw mobile maanaam rapide itam bañ a yàkkamti de trop waaw parce que nag adversaire bi moo toll noonu parce que Bombardier damaa seetlu ne nekkul mbër moo xam ne yàkkamtee ko fay jëlee déedéet Bombardier du yàkkamte ko fay jëlee Bombardier du danga koy jaay doole jëlee gu fa jëlee ko fa gisaguñ ko boo ba mu commencé bëre ba tey man gisaguma mbër mu jaay doole Bombardier wala mbër mu yàkkamti jëlee fa Bombardier au contraire sax da nga naan Bombardier am na combat yu mu ñàkk yoo xam ne yàkkamte ko ko yaa ngi dégg kon nag defe naa ne kuy bëre moom war nga indi am xel war nga indi doole war nga indi expérience bu wóor a wóor a wóor ak lucidité loolu am na ci ndax daa nekk adversaire boo xam ne du ragal bombu comme ni mu koy waxee te loolu Sénégal yi def nañ ko sax nekkul ragal Tapha Tine nag nekk na adversaire boo xam ne boo xoolee combat Bombardier yi gën a metti su ma jumlee mook Tapha la ko na am na ci Bombardier ji solution amagu ci benn solution waaye nag est ce que daan ko ba toog ci kawam dina mën a nekk loolu la douze lañ koy xaar Tapha nag nee na deux minutes da koy daan loolu la wax démb ku ne dégg na ko waaye ndax dina mën a sotti wala déet nañ yónni yàgg ba dimanche soreetul waaye daal loo ci mën a dégg ñu ngi ñaanal ñi ko tëgg yàlla nañ ko réussir leen production ak ñi mu ci àndal ñëpp sponsoram boobu nga xam ne moom mooy Eric Favre bu borom pas de danse yu neex yi démb ah waaye su mu fa jógee ñëw ci samedi bi Assane Ndiaye moom moo ñëw indi ay xale waaw ñoo xam ne ay xale lañ waaye ay xale lañ yoo xam ne tey am nañ cër ci làmb ndax bébé Diène ku ne xam na ne xale la boo xam ne tey ci lutte avec bi wane na ci boppam lutte simple bi kazalika naka noonu waaw ndax nag détenteuru drapeau chef de l'état la ñu ne déet na waaye gàkku de nekk xale boo xam ne tey ci liet naa Balla Gaye 2 yi la bokk muy xale bu naqaree bëreel ñoom ñaar nag dimanche ñu war a bëri wala boog samedi maa ngi jéeglu le onze samedi bi ñu jëm moo tax nag Cheikh Ndiaye xës suñu goro ma ngi koy nuyu di ko béggee moom mooy l'entraîneur de Boy Niang numéro deux xës li mu xëy xam ne daal nee na favori gi moom ki mu koy jox moom moo di gàkku de waaw moom loolu la gis waaw loolu nag a ah, ku ne am nga droit nat xayma xayma mbër mi xayma ay performance am xayma li mu def ba tax nga ne moom mooy favori ndax favori à tout moment rek am na boo koy wax pour man donc koy wér ci ay sart te moom mi ku xam làmb la te kuy topp xale yi la defe naa ne kuñ ne yaay entraîneur Boy Niang depuis ba as ba Boy Niang tey ñuy wax combat royal diggante moom Modou Lô ça veut am nga loo xam kon kon daan combat boobu itam dimanche samedi ku yebu bàyyi ko xale combat samedi bi dina neex de ñu déet ne waaye ay Cheikh Super jamono booy say numéro 2 ah booy Dakar Ronaldinho ay combat technicien ñoom laa Lassane Ndiaye tëgg ñu koy ñaanal tamit moom mu réussir combat boobu keneen koo xam ne ni dañuy ñëw ci moom muy Zarko moo xam ne bu bëggee dégg-dëgg waa Medina Fass moom Zarko sonal na leen ndax yëglikaay bi ne daan na fa mbay gi daan fa aada Fass ñu ne déet ne waaye mu jën kay te lépp ci benn gox bi la loolu nag moo lay war ne làmb noonu la parce que ay adversaire am moo ñoo nekk foofu ndax Zarko bi mu ñëw bi ñu ko joxee mbay guy gi ñu bëri dañ doon wax ne non Zarko sarko bëgg a ñëw def loo xam ne nii sax danga naan est-ce que ñi fi nekk di bëree Zarko mi toog quatre ans ñëwut Sénégal nekk Europe daa nii ni mu gën a métti di sa làmb ji def mu daan def yëngal làmb ji yëngal stadium Iba Mar Diop bëreeg mbay guy gi avec la manière daan ko avec la manière ñu na waaye gaa yi naan est-ce que tandu ko da ko tandu Zarko ne leen joxaat leen ma ñoon di bàyyi ma joon mu daanaat ko avec la ñu ne ah Zarko mi ndax fa la yem ñu jox ko Ada Fass xale boo xam ne daaw trois combats trois victoire Zarko ñëw aborder combat bi mëne combat bi gagné combat bi mu mel ni kon Zarko wane na ne moom mbër waada la man man bërim foo ko takk weesu na ko waaye léegi nag bu ci jógee dana du ma génn foofu nañ ma jox jën tey Ibulaay ne ko am ah, jiina ngi loolu nag incha allahu rabbi xaw ma kañ doon yàlla nañ ko fekkete tal ko waaye dina doon na xale boo xam ne moom tamit yow xam ne mu ngi ko toog bëriwul kon bu ko Zarko jëlee ça veut dire que combat bu nara neex la ñu nar gis bu nara metti waaw loolu moom lu leer nañ la Batista numéro deux na ko làmb bàyyi xale bu am expérience xale bu macha allah nekk sept combat sept victoire na ko làmb bàyyi xel yaa ngi dégg muy xale boo xam ne fi mu nekk ni muy doxee baax na trop waaye nag mu ngi jëm ci combat bu metti diggante mag booy saajo bu Lamsaar te moom Lamsaar la mujjee bëree fis de max la mujj bëreel daan ko kon na xam ne am na combat les amateurs ñu ko tëgg ah ñu ci nuyu góorandooy ak ñi ma àndal ñoom moom bu parce loolu la 4 mars lay doon bu ma fa jógee dem les arènes les arènes suñ suñ fa demee diggante booy Niang ak Modou mel ni que nag yëglikaay bi dafa xëy tey ñëw am lu muy ragal parce que nag bu fekkente ne Ama yóbbu na Grissom mu jàll. CNG moom day am obligation wu jàppaat ko moom ak Gris ci date bu yàggul te loolu su amee bu fekkente ne Modou ak Boy Niang demul au niveau du CNG ba ñu régulariser ko ne su keroog ak jaxasoo man naa am waaw ça veut dire que kon foofu lu ne mën na fa xew waaye nag ak loo ci mën a dégg daal ah nañ yónni yàgg rek comme ni mu ko doon waxee waaw li ci kanam rawuli ba lu ci am dinañ ko xam fii ak ay fan yu néew a néew a waaye lu ci mën a dégg daal Gaston production déggoo na ak Moodu ak Boy Niang fi mu nekk nii ba war leen a présenté dimanche ca TFM loolu moom lu leer nañ la amaa itam ku ne dégg na ne war na yóbbu Gris Sombole sax yóbbu na ko ba pare loolu moom am na ba tey nag buñ continuer ci les arènes Serigne Ndiaye numéro 2 premier sortem dimanche passé ci lit simple bi mu ñëw booy ma doon daan ko booy xale bu dëkk Pikine ne ci gànn séerans de xale bu mën a bëree. nee defe naa ne ku gis ñu bëri Serigne Ndiaye ndax Serigne Ndiaye dëbb na ko sol lalle ko bëgg ko jaay doole xale bi resté foofu bañ roof ko ndengeñ bëri ak moom freiné Serigne Ndiaye freiné ko freiné ko ba Serigne Ndiaye génne boppam di wuti fu mu jàpp booy bi entamé action yaa ngi dégg yokku ci kawam yokku ci kawam Serigne foog na foofu la booy bi tëgg tëgg ko ca xabal wéeru ko ko jëli bu rëy kon félicitations à Boy Maroon di courage à Serigne Ndiaye li simple noonu la moom Boy Maroon moom demi final du ko daan Doudou Sané moomu boo xoolee ren galaa yi ñu tegagu euh, euh, arène nationale wala boog ñaari galaa yi ñëw arène nationale yëpp da koo jël mu mel ni moom def na sept sorties ren sept victoire sept victoire am na ko ci moom Doudou Sané mooy da nga naan sax kii est-ce fekk na li muy def dafa concentré ci sixième ñu koy félicité moom Doudou parce que loolu mu def arène nationale moo ko ñoo ko fa defagu ci li ñu les xamal maanaam ñaari galaa yu teglantoo nga jël ko loolu ñoo ko fa def parce que Franc bi mu koy def Fallou Ndiaye tëgg mu jël Prince ñëw tëgg mu jël kii Jax moo tëgg mu jël moom Doudou Sané bii ñoon Fallou Ndiaye Ibrahima Diop Jax ñëwaat tëgg mu jëlaat kon ñoom ñaar ñoo def loolu mu mën na nekk tamit li simple mu ngi ndox bu baax a baax a baax mais tamit balaa ñoo dem tey ñu féliciter suñu frère Lamine TV ah ku ne xam ne samedi bii ñu génn ca Fatick tegoon na fa 500000 la oto muy xale boo xam ne tamit macha allah mu ngi tege ci aw yoon di liggéey liggéey bu rafet a rafet rafet ci Lamine TV di dundal làmb di dundal làmb moom Lamine TV ñu koy félicité ak ni muy liggéeyandool ñëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ñuy di ñu bàyyi xel di balu ñëpp wax di ñeneen ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ba suba incha allahu rabbi